di leen ziar tey nag ñëwaat fii nii ci nga xamante ne mooy Grand Yoff fekk fi nga xamante ne activiste bu mag koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mooy MC Mass MC ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay delloo ziar Zeynab di la bëggee di la jaajëfal di am mbégte kontaan bu baax si dal bi di ziar ki nga xamante mooy Khalil ak Momo di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Grand Yoff di nuyu Parcelles Assainies bu dëkk bu di nuyu waa Sénégal yëpp di wax Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. amin bon euh, tey nag euh, ñu fas yéene waxtaan un politique gis nañ temps yi réew mi dafa xaw a jaxaso surtout ci côté opposition ak euh, pouvoir mun nañu wax ni que lépp ñu war a demal ci nga xamante ne mooy élection législative bi tey jii ni parti opposition lan nga leen war a wax MC. waaw opposition am nañ droit opposé wu mais na positif quoi bañ a nekk ay wax kese di ngal-ngali taw yow amoo programme amoo dara loolu la ñu war a bàyyi quoi dem opposé wu dem liggéey ji te gis ne wax ji tax dafa teel. parce que état boo xamante ni 6 mois la fi toog nga bu koo laaj bilan da ngay sonal sa bopp loolu mënul nekk. d' wax jooju noonu ñu yaakaar ni tey jii ni kan moo ko war a moom parce que gis nañ ni on peut dire euh, ci euh, def na fi ay 2 mois wala 3 mois mu commencé liggéey bi mais ñii 6 mois ba léegi ñu ngi doog a présenté wu projet 2050 euh, yow projet bi avant tout nan nga ko gisee. projet bi di ko rafetlu parce que loolu la kër gu baax sax mënoo ko liggéey ci 6 mois waxuma laa ko mu réew réew mu ñu yàqu 60 ans da nga ko a liggéey ci 6 mois mënul nekk c'est impossible Macky Sall def fi 2 mois liggéey de nañ xoolaat archives bu baax Macky saal toog na fi lu yàgg doog a defar parce que pour nga liggéey poog nga organiser wu installer directeur société yi yaa ngi dégg say ministère yaa ngi dégg ku ci nekk ak fa mu war a toog nga toog fa ba pare nga doog a jublu ci liggéey teg programme pour lijjanti xaalis pour mën a liggéey mais doo na ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam nga mën a liggéey mënul nekk parce que booy doog a toog foog nga organiser wu ba pare kër sax balaa nga cey dugg xanaa di nga raxas kër gi minace ko ba pare doog a ñëw dëkk mais yow mënoo fa teg réew xëy suba salaamaaleykum maaleykum salaam nga ñëw liggéey ci 2 mois 3 mënul nekk essant na nag génn nañ programme ne Sénégal ay taaxeerlu bañ a yàkkamti te xam ne réew mi incha allah danañ ko liggéey te dina baax waaw incha allah da yaakaar ne ñoom tey parce que dafa kii di président Ousmane Sonko dafa génne ne projet bi 2025 euh, lay commencé te ko wane ne 2025 c'est d'ici dans 3 mois yow da ngay jàpp ni fii ak 2025 changement dina am ci réew mi. actuellement de nag changement am na parce que changement mu ngi nii jàmm am na ci réew mi ay wax rek a fi am parce wax mënul ñàkk mais jàmm am na ci réew mi ak dal am na fi nit ñaa ngi xëy di liggéey amul benn fonctionnaire d'état boo xam liggéey nga ba weer dee te fayuñu ñi liggéey ñëpp ñu ngi fayeeku nit ñaa ngi liggéey ku nekk nekk ci sa business di mos dara mais xëy xëy ne fër lépp di naaw lépp di amandoo mënul nekk c'est impossible non mais sénégalais yi du fii lañ doon xaare parce que ki nga xamante ne mooy jiital Pastef président Ousmane Sonko dafa waxoon ni que euh, ci 2023 bi moom bis bu ñu sénégalais faleen ba ñu toog dinañu def changement ci li nga xamante ne ci premier weer bu ñu bu ñu njëkk a toog si genre nguur gi euh, dinañ ko wàññi dinañ wàññi dund gi dinañ wàññi lépp et gis nañ que temps yi Sénégal la dund bi gën a yokk dafa gën a cher courant moom n'en parlons même pas avec ndox yow noo ko gisee en fait. non yow kon célibataire nga xam naa jëndoo ceeb mais ceeb wàññeeku na diwlin wàññeeku na lépp wàññeeku c'est que wàññi bi ñu tax sénégalais yi bëgg mu am mënagul nekk parce que bu dee juróomi dërëm nga wàññi ki koy jënd fukki 10 kilos par jour wala 15 jours par euh, par jour kooku noonu da daf koy arrangé da koy gis ci gis boppam. ñi ngi wàññi mais wàññi bi ñu bëgg mënagul nekk il fallait que ñu jéem a xool na li nga xamante ni la ñuy dundee ñun ñu di ko bayal suñu bopp parce que ci président Diomaye ci loolu la nekk nit ki li ngay pour nga développer pour li ngay dundee foog nga di ko bayal sa bopp mais tant que koy importer mënut a yomb li nga mën mooy wàññi taxes yi boo wàññee taxes yi tey jii euh, li li boo wàññee taxes yi tey di mën a wàññi mais tey dem bo ki lay jaay ceeb bu yokkee ceeb bi yow nooy def foog nga yokk ceeb bi léegi li ñuy fexe mooy fexe bay bay ceeb ci réew mi di ko dundee su boobaa ceeb bi dina yomb mais feeg ñu ko nekk kilo la delluwaat ay deux cent ak deux cent cinquante ak deux cent vingt cinq mënul nekk c'est impossible il fallait que ñu comprendre benn affaire salaamaaleykum maaleykum salaam defarul dëkk deux vingt cinq bu programme bi commencé incha allahu rabbi nañ sénégalais yi xool parce que sénégalais ñoo leen fi teg am ci ñoom yaakaar te gëm nañ ne ñii dinañ defar ñor dem ànd ak euh, ki fi parce que proposé lu leen teg na xaalis ci table ji lu ne ku nekk jéem na la jënd gars yi bañ parce que kon ñoom nguur leen li leen ñor mooy nañ leen ñuy def comme nag nee ñuy def ba Sénégal ñun sénégalais ñoo war a topp ci seen ginnaaw jàppale leen mais day gis koo xam ku fi gën a rëy làmmiñ amut sax xëy day tëdd di naaw ba pare naan réew mi dara doxul réew maa ngi dox ah nit ñaa ngi sant yàlla bu baax képp fonctionnaire d'état bu liggéey weer de fayoo ko woo amul Sénégal ñëpp ngi fayee ko ñu nekk seen business ñi ngi nekk seen business mais liñ bëgg xëy ni fër lépp cëpp mun ta nekk étage bi sax boo ci yéeg ci ngay commencé benn par benn ba keroog nga yegg ci kaw nañ def nànk te ànd yow daal euh, loolu nga gis ko projet bi incha allah dina réaliser wu d'ici deux mille vingt cinq incha allah d' ñu wax ci projet bi tey jii gis nañu euh, barki démb le président Ousmane Sonko présenté projet bi fale ca forum Diamniadio mais gis nañ projet bi bu nga ko présenté ba tey dafa bëri coow am na ñaari nit ñu génne ñee na ñoom ñoo ko moom ki nga xamante ne mooy Ahmed Khalifa Niass nee na moom moo bind projet bi depuis 2001 ki nga xamante ne mooy euh, Bougane Gueye Dany moom ne moom moo bind projet bi nga xamante ne 2023 la ko bind woon ci programme am tekki Macky 2024 la bokkoon yow tey ci nan nga ko gis en fait. gëm sa bopp mouvement bi moom moomu ko am na keneen ku fi doon njëkk a euh, doxal. mouvement ah. waaw mouvement gëm sa bopp. xaw ma nan moo nekkoon nijaayu Sidi Ahmed Mbaye bi moom moo fi njëkk taxawal mouvement gëm sa bopp nan la def ba mu foqati mouvement gëm sa bopp bi di ko doxal moom. te moom mouvement bi da cee juum mouvement bi warul woon tudd gëm sa bopp xam nga nan la waroon tudd. xam sa bopp. loo bëgg a wax foofu non daa xamul boppam nag. waaw waaw tubaab ak naar du ñu benn xonq leen boole. te lu tax nga ne lu bëggaan xamul boppam. may ma ma ñëw rek may ma ma ñëw Sonko la bëgg def morom te Sonko du moromam. gis nga salaat ak ñax du ñu benn ku weddi marineel salaat ak ñax du ñu benn ku weddi marineel moom fekkee bu Sonko waxee 5 heures mu ne 18 heures dina ko tontu bu waxee 19 heures mu ne ko 20 heures dina day sonal boppam parce que ñoom ñaar bokkuñu koo xam yow musoo am musoo mosoo gagné benn bureau de vote. sénégalais yi da nga fiy nekk di wax yaakaar ne loolu mooy opposant da ngay sonal parce que sénégalais yi jipp nañ ko jipp goo xam ko bañ goo xamante ni fi ñu toll nii élection yaa ngi ñëw li 17 soreetul bu fekkee li muy fëgg dënni ne moom la sénégalais dinañ ko àtte non mais moom moom moom moo ni dafa bind projet moom bokk ci projet am yoo xamante ne bu nekkoon président mu doxal ko waaw léegi Sonko moom la ko bind moom mu bind ko ñoom ñaar kan Ahmed di kooku bul ma wax waxam parce que nee na 2001 2001 ba léegi ñun kan moo ko gisoon programme boobu ku génne dig ni sa programme kay di nga ko génne woon ko Sénégalais kii 2023 la la la génnee kii génne 2019 ñoom ñaar kan moo ci moom projet bi léegi am projet yomb na mais doxal ko moo yombul léegi boo amee projet te mënoo koo doxal ban ban sens la yow am nga say projet man am naa samay projet mais doxal projet bi yombul pour nga doxal projet mooy am projet doxal projet looloo tax ñuy wax projet mais ki bind projet am 2019 yow nga nit ba 2023 nga nga sàcc projet bi copier ko bëgg taxawaat ne man maa moom projet bi bu ko ne seetaat boppam. non mais temps yi temps yi moom la moom la moom ñu bëgg a nommer chef de l' opposition de. waaw euh, euh, fan mooy baas politique am opposant bu amul base mosoo gagné benn bureau de vote mosoo am parrainage koo xam ne Anta Babacar Ngom sax moo la raw. parce que élection yi passé participé na te am na parrainage yow mënoo am parrainage ba pare nga bëgg a taxaw ne man maay chef de l' opposition koy prouver élection yaa ngi ñëw na dem bu xor jàkka jaa ngi doon koy ku mën a nodd noddal na opposé ñun loolu lañ bëgg parce que opposant baax na day dimbale état mais na nga nekk opposant bu radical boo xamante ni li ngay wax da ngay am foo koy teg mais opposant boo xam da ngay wax pour wax rek Sénégal yi jëppi nga leen saa yoo waxee ay xale yu ndaw yi génn di la mais moom moo war a seetaat boppam te noppi dem liggéey parce que jëf moo ëpp solo wax waaw nit yi yàlla du fay mukk ay wax di bàyyi jëf dañuy jëf-jëf ji moo gën wax ji muy wax parce que wax ji amul benn sens na jéem a xool yi nga xam dugaloon nañ seen xaalis ci jooni jooni te di réclamer seen a fay leen a lijjanti problème mu réew mi parce que moom dafa am problème personnel ba pare bëgg nekk fii ne day lijjanti waat problème mu réew mi moom na am problème bu ko doy na dem lijjanti loolu sénégalais yi ay sénégalais comme ñoom seen xaalis duggoon ci jooni jooni mënuñu jot seen xaalis na dem lijjanti ñooñu fay leen seen xaalis ba pare doog a lijjanti keneen non mais politique nag moo ànd ak wax te gis nañ ki nga xamante ne actuellement moo nekk euh, au parti pouvoir euh, ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko ñëpp xamoon ne nekk moom euh, ci wax la am on peut dire ci lii yëpp parce que ci wax la présenter projet wam ci wax la convaincre sénégalais yi ci wax tamit la dem ba sénégalais yi wóolu ko mun ko votel mun a votel ki nga xamante ne mooy njiitum réew Bassirou Diomaye Faye donc yaakaar na wax ci politique la bokk en que gis nañ nga xamante ne Ousmane Sonko moo dakkoon fi attaqué Macky Sall est-ce que nekkul de copier Ousmane Sonko. non mënu ko copier parce que ñoom ñaar bokkuñu wax naa la sànq ñax ak salade duñu benn ku weddi marinel da ko bëgg mel mel lu te mënu ko mel xam nga lan mooy programme bi lan mooy lan mooy problème bi mooy moom dafa bëgg a incarner nekk beneen Sonko te loolu mënut a nekk xam nga lan moo tax mënut a nekk moom bu yaakaar ne ne ci wax la koy amee day sonal boppam. parce que Sonko bu daan wax da daan wax loo xamante ni da ciy teg ci mën a teg baaram mais koo xam day créer di wax parce que tàmm wax lu dul dëgg baaxul gis nga boo ko tàmmee boo amul boo xamul looy wax sax di nga créer wax pour wax te moom loolu moo ko dal parce que bëgg na tontu Sonko ba tax saa yu génne bu génne xam nga tey ji toog fi di werante ci saagu sa saagu première dame ban opposant nga mës a mës nga ko dégg mu tudd postetu euh, Marème Faye Sall wala koketu Marème Faye Sall ba wax ci loolu ay waxu xale la première dame war a yor saagu 10 millions wala 20 millions parce que ay président lay dem di fréquenter ku nekk ak sa niveau ñu dem mën a dem ca mayga ba dañuy dem ca mayga ba ñu mën a dem ci restaurant yi mën a dem ci ñu ko mënut naan ndox tëdd yàlla bindee noonu àdduna na ko xam ñëpp mënuñoo yem àdduna ñii dañuy yéeg ñii di wàcc course bu ñuy waree garab la nag ku fekkewul départ bi mënoo xam ku jiitu waaw. non mais président Ousmane Sonko na ko ko xam sa bopp mu dem seeti boppam ba xam boppam doog a ñëw di wax boobaa sénégalais dinañ ko déglu. non mais président Ousmane Sonko moo fi wax ni que ñoom gouvernement buy bees bu ñuy fal du gouvernement boo xamante ne dañuy nekk euh, di di si di si profité wu di si di si si le amee ci banneex di si kii mi gouvernement liggéey la te gis na ni que ñoom euh, actuellement moom peut-être Bougane Gueye Dany moo taxoon mu génne dinaan chaque premier dame ay 3 millions lay jar ba ay oto yu cher la ñuy dawal ko yow nga yaakaar ne actuellement nekkuñu di cuub drapeau. man cuub drapeau président bu dawaloon oto bu baax lan la war a dawal day dawal vélo wala day dem di yéeg sareetu mbaam. oto yi ñu dul président sax ñu ngi koy dawal di yor ay oto yu baax di yor ay kër yu baax gis nga teraanga ji yàlla defal doomu adama yi doomu aadama yi dañ ko war a jariñoo oto pour nit la kër pour nit la lekk pour nit la naan pour nit la du pour kenn léegi tey président bu yéegul ci oto yu baax yorul soxna su baax yorul kër gu baax yorul matériel bu baax lan la président war a dafa war a nekk koo xam dañ koy gis di ko yërëm wala di ko di ko di di ko sarax tam yor lépp réew mi dafa war a melenkaan boo xam ku ko gis nga ko war a bëgg da ko war sopp xemem am benn xemem tef ci moom xam ne kii kat bëgg na boppam ku ko jox réew mi mu mën a yor réew mi moom mi ngi nii fu jëm tey benn convoi lay def mel ni mooy nekk président tey ku ko joxoon réew mi sax a àdduna teral nag avant politique bi te gis nañ ni que ki nga xamante ne président Ousmane Sonko loolu la doon attaqué Macky Sall nee na jël na xaalis bi séddale ko ba ñu ngi dawal ay oto yu cher yoru ay kër yu luxe te loolu yëpp bu ko paree da koy audité waat ko waaw léegi da yàlla da koo teral lan mooy teraanga ah bugaan bu mu féete milliard yàgg na de milliard du teraanga nit a ngi nekk yor ay milliards ba pare nekk la nit day toog du yor fukki dërëm ba pare nekk noobul xam nga kan mooy kan kan moo am teraanga mooy ki yàlla def ci moom mu mën a muñ ma inna allaha maa saabiriina bu xiifee kenn du ko xam bu maree kenn du ko xam bu amee kenn du ko xam bu ñàkkee kenn du ko xam kooku moo nekk ci teraanga mais boo yore xaalis ba pare yor ay milliards ba pare sa xol bu gaa yi tisooli ngeen wëraloon tisooli bu gaa yi oto bu rafet nga kaas ku ànd jigéen nga kaas ku yor xaalis nga kaas kooku sa xol neexut kooku yàlla terangul teralu la dalaa toroxal nit ki am xol bu rafet am xol bu sell am dignité kooku la yàlla teral nga xamante ni lu bëri mën na ko gis teg ci tànkam te du wax kooku la yàlla teral mais du xaalis nit day am ay milliards ba pare nekk baadoo la nit amul dara ba pare nekk noble il faut ngeen xamee loolu xaalis du teranga ndax am na ko xam daf koy sàcc am na koo xam day agressé am na koo xam dafa tëriande pour am ko te xaalis yooyu nit waru koo bëgg ki am nan la def ba am ak nan la ko amee est-ce que loolu lu ñu war a lijjanti d'accord MC Mass samedi 19 Arena président Ousmane Sonko moo fa woote. waaw jeunesse bi yëpp a ngi koy waaj jug dem mu fees dal amatul xaar taq jug kilifa gi moom bu wootee na yi faxasu lu waaye jàppoon bàyyi ko te xam ne kilifa gi moo woote kon amatul xaar jeunesse bi yëpp ñu ngi koy waaj dem mu fees dal ñu déglu Jomaay déglu Sonko mu joxe programme ndaw ñu appliqué mu jeex. waaw le 17 moom ñu bàcc mu leer nañ kuy cëppi-cëppi nag bàqu jëm ca làmba ja jugee ca làmba moo ko gën comme moom nee na mooy chef de l'opposition bientôt le 17 soxeetul incha allah dinañ xam ba xam tubaab ak naar benn lañ wala xonq moo leen boole. tey lan la ñu xaar président Ousmane Sonko le 19. parce que gis nañ ko saa yu génnee euh, euh, mbooloo topp ko saa yu ko génnee saa yu bëggee génn jeunesse bi dar ko ànd ak moom gungee ko te depuis euh, loor ba léegi yaakaar naa ne bii mooy war a nekkat deuxième sortie en politique mu war ko génnee ko dakaar ba mu set de ba war ko yóbbu ba jom ñaaju loolu lañ xaar ci président Ousmane Sonko. Sénégalais yi Ousmane Sonko mosu leen war mosu leen nax lépp lu mu leen wax dëgg lay doon te lu mu gëm lay doon moo tax nit ñi di ko wuyu xam nga bu koo xamante ni dalay jox tiset wala mu jox la xaalis tegal la kaar ni la yéegal dem su boobaa nga ne kii dafa fay nit ñi pour indi leen mais du jox kenn dërëm fu mu wootee nit ñi wuy ji ñoom ñoo war a lijjanti kii nan la def ba bu waxee nit ñi déglu ko bu wootee nit ñi wuy si ko bu laajee nit ñi jox ko loolu question la de ñoom opposants yi da nga waroon dem toog ak ñoom nga laaj leen loolu ne leen Ousmane Sonko lan mooy secret ba bu wootee nit ñi wuy ji ko te du leen jox paas du leen jox tiset te su laajee nit ñi jox ko te lu mu leen wax nit ñi dégg ko soxna si loolu du ndaw de yombul de am xaalis taxul boo waxee nit ñi déglu la am xaalis taxul nga am nit ñi mais boo amee kàddu gu dëgër kàddu dëgg mën ngaa am nit ñi te Sonko loolu la ko yàlla jox muy kàddu gu dëgg te li muy wax lu mu gëm la lu mu teg la lu muy gëm la lu muy teg la loo xamante ni xale yi dañ koy gis di ci gis seen bopp moo tax jeunesse bi dama ànd ak moom mais xaruñu ci Ousmane Sonko 5000 bi mu lay jox wala 10 000 wala mu tegal la kaal wala tisat pour nga yëg ci dem arena parce que dafa yor kàddu dëggu dëggu ba pare di dëggal di jubal di leeral moo tax jeunesse bi dem ànd ak ñoom te ñun loolu lañ bëgg suñu réew am changement ña fi daan toog di sàcc suñu alal di ko pasar pasare di ko yàq di ko may seeni i nit ak seen i am di jàmm ak di ko may seen i jongama loolu jug ci senegal xaalis bi sénégalais yëpp yem ci ku bëgg a faju faju ku bëgg a jàng-jàng ku bëgg liggéey liggéey Sénégal nag Sénégal yëpp gis seen bopp ñu loolu moo ñu intéressé mais xeexuñu suñu combat pour interpersonnel pour suñu bopp loolu tax jug il faut que yi xam ne dañu ñëw pour soppi Sénégal pour defar Sénégal Sénégal lépp leer lépp baax ba suñuy sët sëtaat bu ñëwee tey mën a jariñu parce que Europe gi ngi gis mu defaru ay malaaka defaruñ ko de ay jinne def ay nit a ko defar te nit ñooñu ñun ak ñoom képp a yem wala xad karam naa bani aadama dañoo xeex ñun ñu ñuul ñu am jom am fulaak fayda takku liggéey defar seen réew ba tey ku ku jug ne dama bëgg a dem Europe ñun est waruñu mën a def lool duñ takku liggéey gëm suñ bopp defar suñu réew ba tubaab bi jógee Europe ñëw fii di moodu moodu pourtant mën na nekk parce bépp teraanga bu tubaab soxla tey am nañ ko bu dee pétrole gaz zircon lépp bépp ressource boo xamante ni doomu aadama soxla na ko Sénégal yàlla jox nañu ko léegi am nañ ay njubi jub lu ci def accompagner leen jàppale leen ñu liggéey mais yow nga taf fi yor sa laam ñu réew yaakaar ne mën nga leen perturber da ngay nax sa bopp loolu daaneelul état bi de gars yi dañuy liggéey te incha allah dañuy liggéey maa la wax lii nag bindal denc. d'accord dinañu liggéey donc on verra d'ici euh, trois mois dinañ ci teg sa suñu bët ñun ñëpp sénégalais yëpp euh, retour de président Macky Sall Sénégal bëgg a bëgg doon président pour bëgg a doon autant pour moi euh, député à l'Assemblée nationale. Macky dama naan moom daa xamul boppam. parce que li tax xamul boppam nit bu la yàlla defalee teraanga teraanga je da nga koy delloo suñu borom parce que kuy politique ba dégg président de la république yaakaar naa soxlaatoo dara ci politique. parce que kuy bëre ba dégg roi des war ngaa mën a tekki sa ngeen ngemb dem te di nelaw tey nag bu taxawaatee di xëccoo ay tête de yaakaar naa joxul cër sax ñi mu nekkal parce que ñi mu nekkal fekkoon nawloo na leen wala jox na leen cër war na leen waxtaan leen seen biir ngeen xool ku ngeen jiital. gëmoon naa ne man su doon man a noon laay def mais waratu fee ñëw di fi soxla ay tëdd liste ay député ak ay maire ak yenn yooyu parce que loolu waratu ko xam nga lan moo ko war dem jaamu ji yàlla fexe ñaawteef yi mu defoon Sénégal mu xool nu ko yàlla jéggalee foofu la war a taxaw bu amee lu muy dimbale waa partam ci wàllu financement ci wàllu xalaatam lu mu la di mu jéggal mu dimbale leen ko te yàlla rek tax mais ñëw fii di nekk ay tëdd liste xaw ma fan lay campagne mais doon Sénégal te moom. pourquoi du doon te mu nekk citoyen sénégalais. ah ñaawteef yi mu fi def ñaata doomu jàmbur la fi rey ñaata doom jàmbur la fa rey indi fi ay tooxi doon yu jeex génn réew mi xëy ñëwaat fi naan day campagne du campagne Sénégal de xaw ma day campagne wala campagne na dem Maroc wala mu xool feneen fu ko campagne mais fii moom du ko fi campagne moom duñ ko ko may sax ah. lu tax euh, nga jàpp ne moom waru fi campagne bu ñëwaatee fii dañ koy tëj wala qu'est-ce qui se passe. ah liñ naan daal golo moo yéeg ca kaw ba bañ a wàcc moo xam la ko fa téye golo su yéegee ci kaw garab te wàcc nangu te wàcc ci suuf wuti lu lekk. toog fa rek te wàcc la ko fa téye moom moo ko xam li tax nag moom mu toog fa ñëw na mu wut a ñëw ah moom moo ko xam parce que Macky Sall ay dossier mi ngi fi di ah bu fi ñëwee de lu ci fekk na xam ne moo ko moom moo ko teg boppam mais daal su mu doon moom damay bàyyi politique jam jaamu ji yàlla li ko dese ci dundam plus de 60 ans moom boo ko amee denc nga ay milliards yoo xam mënoo koo lekk li def sa dund la la dese mooy demal jaamu ji yàlla man loolu laa gëm d' accord euh, ki nga xamante ne muy président Macky Sall dafa ñëwaat nee na day euh, day nekk tëddali si parti yow mi nga xamante ne mooy APR mais gis nañ ki nga xamante ne moom itam kooku moo taxoon mu exilé wu mooy Karim Wade daa mel ni day bokkaat de moom itam jàpp nga ni est ce que dina duggaat Sénégal moom it parce que Macky moo taxoon mu exilé wu bañ a duggaat donc vu que Macky dem na est ce que moom dina ñëwaat bëgg def campagne moom itam parce que gis nañ ko temps yi moom ak Macky daa mel ni mbur ak la de. waaw Karim de am na droit ñëw participer xale la am na avenir politique mais Sénégal ay fàtte nañ ko ndax réew moom boo fa bokkee da nga ñëw toog bokk ci ñay ñay ñay nasa boo bëggee ne da ngay décider ci am réew da nga fa bëgg a nekk dara ba pare dem toog réew jàmbur nekk ci sa jàmm luy xew ci réew mi sa yoon nekku ci ba pare nga bëgg ñëw élection ba élection ngay wax ak sénégalais yi yaakaar naa sénégalais yi bu ñu amee fulla duñ la votel waaw li muy wote daal bu dee gëm na ko na ñëw toog ci réew mi liggéey ko ko gaay di dund li yi dund mais toog fële rek di joxe say ordre wala léegi lii laa bëgg yaakaar naa loolu mayewul dara waaw mbir boo ko bëggee da koy ñeme xeex ko comme ni Ousmane Sonko ko defoon ak Jomaay toog fi jaayante ko dugg ci kaso bi ba génn jël liñ bëggoon téye ko seen loxo parce que balaa mu neex foog mu naqari de waaw xëy xëy rek neex amul fen